Mm. waaw jëmmam jë moom Cheikhul Khadim mm. ñu bëgg xam tolluwaayam ba moom Cheikhul Khadim la njëkk nuy ñëw ci tawxiitam ni mu ko dundee ak ni mu ko digalee njabootam ak taalibeem ak ku ko yaakaar moom Cheikhul Khadim ak ñu gëm xam taalibe mën naa dégg tawxiit ci biir dundinu Cheikhul Khadim ak jëmmam jaag melokaanam jaag doxiinam gaak moom Ahmadou li yàlla def ci moom waaye ni mu dundee tawxiid ak ni mu diggalee moom Cheikhul Khadim njaboot gi pour ñu dundee ko tawxiid euh, mooy première question bi buñ ci noppee nag bu ko defee Oustaz Modou sëriñ Mamor Mbacke moom itam nga xam ni maamam rek lay dund sëriñ Assane Seck ñoom itam ñëw ci yeneen question yi ñu delloo sëriñ Pape ak ñi mu toogal waaye daal question bu njëkk bàngoog ñu bëgg a xam man huwa Cheikhul Khadim Ahmadou Kane la. Euh, jërëjëf <clears throat> dal oustaz jërëjëf mbokk yi ci laaj bu am solo boobu muy dellu waat nafar xamlewaat aslëf ci Cheikhul Xadim li ko waral it mooy at mu jot am ku bokk ku ci bokkuloon te xam war ko at mu jot am ku toll ci war a gëstu. te xam war ko ñu war koo fàttali loolu mooy waral ñuy baamtu ak waxtaane jaar-jaaram ngir ñu xam kii lu doon te dafay tegtale it ne bu ñu ko waxtaanee dangay xam ne fondement bi mu am loo ca teg dana ko attan te sëñ bi loolu mbiram foofu la tàmbalee foofu la jaar mm-hmm. muy koo xam ne tey bu nekkuy Sëriñ Tuuba mooy Ahmadou Bamba mi nga xam ne tur woowu mooy tur wi gën a siiw ci ay turam bokk na ci nga xam ne tur wu ñu koy tubee la muy Ahmadou Bamba waaye xaadimu rasuul xaadimi rasuul jëfam ak taxawaayam moo dem ba may ko loolu mu doon koo xam ne tey boo ko doon wax tey topp silsilaam dafay dellu ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne ab shérif la umman wa abba nga xam ne silsilaam boo ko toppee rek ci yonente bi alayhi salaatu salaam day delluwaat ci wàllu mbàkke ak buso bu fekkee ne topp nga histoire sëriñ bi mhm. euh, way juróom wu sell way di sëriñ mbàkke morante sëri mhm. mi doom imam Balla Aïcha mi doom imam maaram nga xam ne maam maaram sëñ Fallou daan wax ne mooy sunu màdd naan boo ci accès rek mën nga taxawal foofa mhm. ñu nekk nit ci xam-xam nekk nit ci diine euh, ak soxna su sell si soxna jaaratullahi maam Mariama Bousso Euh, mi nga xam ne kenn ku ne xamoon na melokaanam ak doxiinam te moo di nekkoon ku sel ku fegu ku sàmm kook diine mm-hmm. kon day mel ni boo doon tudd loolu ci nit kii topp jataay boobu day xam loolu mm-hmm. waaye yàlla dogalit mu feeñ ci xarnu boo xam ne dafa am lu mu tegtale ndax sëñ Touba ama charaa la feeñ mm-hmm. mooy cent 1270 1270 oustaz boo ci tegee fanweeri mooy doon mille trois day mel ni kon day nekk junniy at ak ñett téeméer mhm. kon lu cay topp xarnum ñeenteel lay doon mhm. muy téeméer ak ñeent léegi nag jëmmi xarnu boobu am na lu muy tegtale yonent bi alayhi salaam dafa waxoon ne tuuba li man balaxa miata rabia ba'dal alf texe ñeel na ki nga xam ne dafay jamonoonte fekke xarnub téeméer ak ñeent junni ak ñeenti téeméer ñi yàlla may gis-gisu biir xam nañ ne yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu daataan feeñ am nañu yàlla xamal ne am na ko war a ñëw ba am nañu ko adressé ba tale ko boo demee ci alxuraan fekk ca yonent yàlla saa wax ne maa ngi leen di bégale yonent bu war a ñëw sama ginnaaw kooku Ahmad lay tudd kon yàlla bu waree feeñal dara faaw mu def annonce boo xam ne wane na am na war a ñëw sëñ Tuubaa mii ñu yàlla mayoon gisub xol ñëpp xamoon nañ ne am na ku war a ñëw koo xam ne dafay nekk xutbu zamaan bi am na ku war a ñëw nekk mu jaddit bi am na ku war a ñëw nekk mu xaafis bi te mu jaddit ñiy topp xam na ne ci imaamul Ghazali bari na ñu mu jaddit réere ci ñoom sëñ nag fi ne mooy mooy fukkeel ak ñeent ci mu jaddit te loolu dafa am ay mandarga yu ko teg tegtale li ci jëkk mooy ku ne xam na Cheikh Amadou Fouti Tall mu baax mu sell ma boo demee ci téereb Sëriñ Moussa Ka da nga ca fekk fu ñu bind dikku Cheikh Amadou Fouti Tall Mbàkke kon Cheikh Amadou Fouti lan la doon ñëw mbakke am na lu mu doon wone wane ne am na ku war a ñëw te kon la mu wane ca sëñ Mor Anta Sali wane ko Soxna Jaara misaal moomu la mm-hmm. am na beneen nitu yàlla bu ñuy wax sëñ Mor Gumba Amar nga xam ne euh, moo nekkoon na ca njarne sëñ Mor Gumba yonent bi alayhi salaatu salaam da daan dugg xalwatu moom mm-hmm. sëñ Mor Gumba nga xam ne daana dugg weer wala mu dugg at wala juróom benn weer mu dugg ko xalwut waaye bi ko leeru yonent bi di won sëñ Tuuba ñeent fukki fan la dugg xalwa yonent bi xamal ko ne ko am na jaamu yàlla buy feeñ ci kaw suuf boo xam ne ku jamonoonteeg moom suñ borom dana la texeel mooy mu jaddit bi mooy bu xaafis bi mooy mooy mooy téeméeri mu jaddit ak ñeent bi war a feeñ maam mooruma gumba xaadi la jàpp loola ba dégg bi xareb maba joxu ba jeexee te Serigne Touba jógee ca xale ba ànd ak way juróom Serigne mbakki moo Serigne ñëw Pataar bi jógee Pataar Lat Joor sensé capital bi yóbbu ko Sugeer Sëñ Mbàkke moo Serigne ñëw Mbàkke fekk moom bàyyi sëñ moor mii wax nañ ko ne ko mu jënd bi mi ngi ci kaw suuf feeñ na te ñaari xaadi leen xaadi Mor Anta Sali ak xaadi Mor Gumba Amar biñ déggantee nag ñu xam ne ñaari xaadi yi xamante nañ sëñ moor dafa ñëw seet si sëñ bi ñëw ñëw ñëw Mbàkke Kajoor ba mu ko gisee nag won ko ne ko tegtal yi ma doon won ci yow mii la nekk waaye boobu way juróom a ngi fi sëñ bi ne ko waaw waaye nañ ñëggandiku rek nañ ñëggandiku bi way juróom génnee àdduna ci sësin di 1300. SS 10301 ci la sëñ bi yoo woote yoonu murit dëppoo kon téeméer ak ñetti téeméer at junne ak ñetti téeméeri xarnu bi génn ñu dugg ci xarnu ñeent ñeenteel bi kon ki sañoo woote ci boppu njëlbeenu ak xarnu bi lay woote ci la sëñ Tuubaa woote. léegi jëmmi sëñ biit li tegtale loolu. demal na boppam ba njarma ca maam Moor Kubba keroog ba mu ba muy dem sëñ Moor dafa xëy baleelu mbedd yi. duy lu ndaay tàllu ay gët di wax ne xet ga ma xeeñoon te yonent bi junjoon na ma ne mi ngi ci kaw suuf xet googoo may xeeñaat tey jii ku wax loolu Maam Mor Gumba Maam Mor Gumba Amar Maam Mor Gumba bis boobu la sëñ Touba ñëw fekk mu jóge andu àndulaay ñu togg ko ci gëléem mu ñëw wàcc si fa ñëw fa wax jant buy xonq dajane fa ak Alaaji ma Si radiyallahu taala anhu timis julli na ko fa sëñ bi mhm. suba tisbaar takkusaan juróomi waxtu la fa sëñ Touba julli ca njarne ca njarne bokk nañ fa benn ndab benn këllub laax boo xam ne maam Mor Gumba ak El Hadj Malick si ak Cheikh Amadou Bamba ñoo ko bokk. Hmm. benn watt bi ci lañ doon jëfandikoo maam Mor Gumba moomu sëñ Tuubaa doon na ko leel ak El Hadj Malick. est mu jël ay doomam jox ñii El Hadj Malick jox ñii sëñ Tuubaa nga xam ne jébbal la ñett sëñ Tuubaa. Hmm. loolu ba mu amee moom mu des ci al ci ci ci tariixa ba mu nekkoon kon junjoon na ne ki mu doon wane ñëw na waaye liy firndeel loolu rek dafa am ay laaj yoo xam ne amoon na ca Kajoor te laaj ya mënoon a gagal ñu bari. bañ ñëwee bokk na ci Mamour Gumba ñetti laaj yu mu ko laaj bokk na ci mooy mu wax ko ne ko fii ko dafa baaxoo ku la fi daggal suuf day yayoo yow dabul ajjuma waaye ku la fi daggal suuf it day waralul ci yow fàllaray tabaski waaye ku la fi daggal suuf it day waralul ci yaw asaka xam nga loolu ay laaj la waaye xoolal mànduk sëñ Tuba ak dégg diineem bu doon keneen da ngay dégg muy tawi sëñ Tuba dane ko asaka de juróom-ñett ko moom ku ci bokkul bokku asaka juróom ñett ko moom ku ca bokkut bokku xam nga ne ku fay détaillé naan wóorut ak yooyu waaye dana asaka rek ina ma sadaxat lil fuqara kon juróom ñett ko moom ku ca bokkul bokkut daal dina koy it tabaski fayit wareef ameel naa la 3000 kilo bi yàpp 3000 lay jar naa dagg ci xarum tabaski mi fayee la ko ki fayit wareef alal li jàmbur lu mu la jege jege te joxul ko moomu door leen a joxub dénk nag daana damaa fekk nit ñi ci neen ma bëgg leen a wëlba ci dëgg ak jub seen maam yi seen bàyyi ci dëgg la nekkoon dëgg googu laa fas yéene mm-hmm. tam jamono tàmbali woon nañoo gis xam kan mooy kii di Ahmadou Bamba mm-hmm. loola it wane na mu teel a gañaayoo bi muy am fukki at ak ñett fukki ñaar la ñu yàlla may basiira ñu am xam-xam wane ne kii mooy ki suñu borom di dénk xuróon yi di ñëw muy siècle yi di ñëw mm-hmm. yàlla dénk na ko kii di Ahmadou Bamba loola it bañ na ko ba ku ko doon wax euh, melokaan wam amoon ak doxiin wa ci xam-xam bu réeree la ca tegoon mm-hmm. loolu it kon euh, da ngay gis ne ki doon wax ne innal xuruuna bi naa sunia azimatihim fii raaxatayka li yanxaadu ma an xaadu hada la ahmada bamba kaane walidahu bahrul ulumi namiril ma i mawruda loolu yàgg yàgg naa dégg loolu ci wan ko ne ko siècle yi di ñëw seen xarnu yi seen nosi sa loxo la nekk yow ahmadou bamba mm-hmm. mu ñëw kon li sëñ Moussa naan ko bala yàlla yebal si booba luy xutbu yaa di seen sultaan yi li lay firndeel loolu it ci ss di 1301 sëñ Tuubaa dana yonent bi feeñul na ma boppam shafaha nii mu shafaha mooy tuñante bi xawlihi rabbi asaabaka bil himma na nga yar taalibe yi ci jiite ju kawe lu tax waxaat ayyanaka laa mujaddidan li haadal ji sëñ Tuubaa mujaddid la woon ma xaafis la waaye day mujaddid boo xam ne nag dafa am yeneen yu ci am yoo xam dana dana leer ci aw doxiinam loolu it bi mu ci keppaaru xam-xam la sosoo defe naa sëñ Mbacke Mor Sali bàyyam université bi gënoon rëy ci réew mi amee woon na ko ñaata nit ñoo ca génne ci xam-xam ngir jànge fa waaye sëñ bi yàlla da ko may tawféex nga xam ne sëriñ Mbusoobe mii nijaayam ci la jànge di mbokkum soxna jaara bokk ak moom lépp ak nijaay way juróom muy tafsir Mbacke Ndumbe ginnaaw bi tafsir Mbacke Ndumbe génne àdduna it gis nga mu wéyalaat ci way juróom sëriñ Mbàkke Mor Anta Sali jaar na ci ba xaadi ma jaxate la dañu koy faral di wax sàmba tukulóor ka nga xam ne ci wàllu kër ndeyam muy mbokkam mhm. ak nijaayam sëriñ bu soobe mhm. nga xam ne ak ñenn ci euh, sëñ bi nag demuloon gànnaar di fa jàngi waaye ku ñax Muhammadul Yadalil Fadli ad-Daymani nga xam ne euh, daana ñëw ci réew mi léegi-léegi mhm. sëñ bi dajanaa ak moom jël ci moom ay xam-xam yu baree bari waaye xam nga ne jëmmi sëñ bi ci boppa moom euh, wareelu wutoon ci di génn réew mi ngir di sàkku ji xam-xam te gis nga ko ni mu mel ci xam-xam yi xam ne waxuma la xam-xamu euh, bu ñuy jàng nii wala xam-xamu la waaye fi mu egg ci dimension xam moom defe naa ku xam sëñ bi da ci xam ni mu mel ci kawe mm-hmm. mm-hmm. loolu yi tax na ba day ci feeñ ci dox yi ni ci am loolu it ni nga koy xamee mooy mu teel a sàmm nga xam ne Serigne Touba néegul bay mag dooru soobu ci jaamu yàlla ci juróom-ñaari atam la daan fanaani naafila te boobu dalagul jàng juróom-ñaari at juróom-ñaari at ibnu mualla wax na ko saada tiflan wa asruhu laysa fiihi man yusalli bi sabati awaamin man xaaza martabat al axyaari fi sigarin ata bada fawqa abdalin wa axyaari allahu akbar te booba lu daaral loolu dafa dégg way juróom wu selloo soxna jaaratullahi maam ma Buso nga xam ne sëñ Basiru nee na kaana turabbi awlaadaha ala almuruati wa taharati wa diin wa kathiran ma taxki alayhim xikayatu saalihin wa taqul lahum min dabi saalihin xiyaamu lay nga xam ne booba soxna si ci boppam mooy wax njaboot gi naa leen gaa yu baax yee ne lañ leen daan nawe bu guddee ñuy taxaw di naafile sëñ Tuubaa teel dégg loolu ba guddi jotee bu nit ñi tëddee mu taxaw di naafila te nee na booba dalagul jàng mu ne xoolal gii gàtt nga gu rafet ndax ndax dégg na waxu wuy juróom bu tedd boobu waxu wuy juróom bu tedd nga xam ne juróom ñaari at muy fanaane muy fanaane taxaw ba bët set moom Serigne Touba kon moom dafa am sept ans commencé topp sunna yonent bi tomp sunna yonent bi ndax yonent sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon bu nga seen doom amee juróom-ñaari at rek mm. na tàmbalee julli moom juróom-ñaari jooyu la tàmbali moo tax xadd naa la waxta siba maa ajazal kubara yaa habada kibarun lahu kasa sixar mm. ni ndaw gi mat ni mag gi mate ci rafet noonu la ndaw gi mate ci rafet moo tax mu teel a dajale maqaama yi gaa yu gaa yu gaa yu baax yi ci melokaan woo mat woo xam ne moom lay dox waaye mu nekkoon koo xam ne it noonu la teel a ràññ ko ci ak sàmm ci waxtu rawam noonu la teeloon a ràññ ko ci ak dëggu noonu la teeloon a ràññ ko ci ak mandu ak bëgg xam-xam ak yittewoo ko nga xam ne xam-xam moo nekk léppam jaraloon na ko dox ay diggante jaraloon na ko joxe lu ne ngir xam-xam bu mën a géeju ci géeji xam-xam yépp mhm. waaye teel a bëgg yàlla teel a bëgg yonent bi alayhi salaatu salaam amuk dogu am yitte ju rëy nga xam ne mandarga yi ñu teel a gis ci moom dañuy xam ne kii am na lu suñ borom euh, waajal ci moom loolu nag tax na ba mhm. nga mën a gis ne ñi nekkoon ay way juróom sax teel nañ koo wax ne ko doom nga woon waaye léegi yaay baay ab taalibi nga woon léegi yaay sëriñ bi moo tax Serigne tubaa gis nga Serigne bu sóobee mii ma a wax muy ni yaayam bokk soxna jaara lépp jébbal na ko boppam Serigne Mor Anta Sali mii bàyyam jébbal na ko boppam sëñ Mbacke Kajoor mii bàyyam taxam nga xam ne mosaa wax sama baay sëñ Mbacke Kajoor lay wax muy sëñ Mbacke Ibra jébbal na ko boppam mm. sëñ Touba nga gis koo xam ne bàyyam jébbalu na ci moom nijaayam jébbalu ci moom mbokku bàyyam jébbalu ci moom taawu bàyyam jébbalu ci moom ay caatam jébbalu ci moom tan bokk Mbacke ji bokk busa ji bokk xam bi bokk juddu bi waaye mu andi lu kenn mësta lamboo moom Serigne Touba. sëñ Pape déglul bayit sëñ Touba wi. xostu xayaatan. laa turaali xëyri mujizatan baana li usni xëyri sëñ Touba ne làmboo naa dund goo xam ne ci kaw teer bii kaw suuf sii. kenn mës sa làmboo dund gu mel noonu gi ma làmboo man. ci jub ak baax ak sàmm ak ragal yàlla ak yu jëte ju kawe. teel dajale melokaan yu yooyu yëpp ci baax ak wane yoonu yàlla ak dëgmal ci nit ñi. suuxat ci xolom boobu looloo tax nag mu teel a tàmm wéetal yàlla ak teel koo xam jaar ci mboolem lu baax lu mu fi fekk mu sukkandiku ci awraad yi mu fi fekkoon alqadiriya asazaliya atijani lu ci nekk mu jël awraad yooyu lu baax lu am mu di ko jëfandikoo fa jultu bayna al ulama wal awliya fu dégg ku baax mu dem seeti la moo waral maam Gumba bi moo waraloon keneen sëñ Maxtar Penda si mu baax ma nga xam ne sëñ Maxtar Penda si mooy mooy mooy maami sëñ euh, Malick Bassine ak sëñ Mor Bassine teeloon naa gis sëñ bi xamal ko ne ko tukki bu sori danga ko danga ko tukki waaye jotagul. waxoon na ko waxoon na ko ko bu yàgg a yàgg. ci kon ñi amoon gis-gisu xol teeloon na ñoo xam kii mooy kan ak fan la jëm. wax na benn wàllu yu la kaamil. la. Mm-hmm. kon teeloon naa teeloon naa xam ñoom euh, ñooñu yàlla joxoon gis bu leer teeloon na ñoo xam kii di ñëw kum doon. mu ne ci ron way juróom fan weeri at dund koog Serigne Mbacke Morante Sëñ. du taxaw du taxawal xanaa jàng ak jàngale ba teel ba ci biir xam-xamam may ko mu taalif téere yoo xam ne sëñ Mor sa Sali mii bàyyam jàngale na ko ci biir daara ji ndax daan daan na jàngale ci biir daara yi ma Mor sa Sali sëñ Tuubaa daan jàngale naaru gànnaar ba nee na ñeent yi la sëñ Tuubaa teel a min ala arbain addamanta fi samali siba ala al ilmi wa taalimi wa zuhli wa nuski allahu akbar mm. jàng ak jàngale mm-hmm. dëddu adduna ak jaamu yàlla loolu la sëñ bi daan def nga xam ne ci sàmm ak dëddu àddina ak melokaan di jàngale man a jàngale moo tax mu wuutoon bàyyam ci daara ji ba bi muy wote yoonu murit bari na ñoo xam ne bi ñuy bi ñuy bi ñuy jaayante fekk nañu jiitu suñu sax ngir man a jàngale ak déggu xam-xamam nga xam ne ci biir daara ji taalif na fi téere yoo xam ne sëñ Mor jàngal na ko ñenn ci ay ay ay doomam. sëriñ boo ko taalif ci daara ji. daa taalif téere téere xam-xam yoo xam ne jàngale lañ ko ci ci ci daara ji. loolu kon teel dégg maanaam xam-xamam ak teel a géeju te li ngay xamee loolu mooy daana wedem loo boroomi xam ci keppaaru way juróom ana Ibrahima al Baghdadi Ibrahima Baghdadi ku doy waar la woon. Baghdad la jógee woon bari woon xam-xam. Mhm. waaye Alaaji Pap daf daan tux. Mhm. benn bis nag muy seet sëñ bi di ko natt. Mhm. na ko loo wax ci kii dënn gi tux gi. sëñ bi ne ko defal la nga daan def rek. allahu akbar mu ne ko fasalu ahla dikri in kuntum laa laa taalamun laaj leen way xam yi mu ne ko daa yëllu ci mu kàllaf muy def lu mu xamul ji da waroon bala nga koo def ba noppi xam lii Euh, est-ce que yellul daa yellul ci mukallaf la mu xamul muy def lu mu xamul atteem ah, ah. bala nga ko waroon a war a def nga waroon a laaj ba noppi Abdoulaye Baghdadi yi moo ci la jébbaloo ci sëñ bi bi waa Baghdadi yi tàmbalee wax moo man zanna nii xayra xadimal Mustafa fa inna nii aqdimuhu ka Mustafa di Mustafa waaw loolu moo koy tegtale ci fanweeri at yooyu mu teel a géeju ci xam-xam dajale lépp mm-hmm. fanweeri atam mu taxawal ci yoonu murid ah yoonu murit bi mu koy taxawal fanweeri at. fanweeri at la am. Maam Mor Sali dem na wala. Maam Mor Anta Sali dem na charan la feeñ sësin la sëñ Mor Anta génn àdduna asës mu taxawal yoonu murit. ngirum tërbe mm-hmm. muy defar nit mbooloo topp ko ci sawu jant sëñ Tuubaa ko fendi sayxu taalim amoon na sayxu sayxu taalim mooy sëriñ buy jàngale di ami àllarba ak i dibéer mbooloo di la topp waaye gërëm naa la yàlla gërëm na la rasulaay gërëm na la barke topp la sëñ bi ko di sowu jant mhm. dellu ci waxi sëñ Moussa ngirum tërbiyaa ngi xew ci sowu jant yaa ko def pajuk aajo yaa tax nit ku ñuul mus ko fii Touba mhm. ku ci bañ a Bamba xam naa da koo xamut ndax gumba gistul leeru jant yéem naa sëriñ Touba kamaalu rasulullahi mooy mat gu duutu sew mhm. matuk sayidul kaw nay ni lan jox sëriñ tuubaa gi ñoo naa ne yaay wutaatu njool màkk ci defar ku koy sikk sàkkaa réer a jaglaj moo wutu yonente ci defar naar bay loolu la wax antal murabbi bi maa rabbal aminu bihi xarfan bi xarfin fa ma fil jili charwek ku wax loolu naar la moom la seereel ko Sëriñ Tuubaa mhm. na ko yow yaay ki nga xam ne da ngaa yare ni rasulullah sallallahu alayhi wasallam yare xarfan bi xarfin wuute woo ak melokaan ak doxinam loola tax mu ràngoo melokaan yooyu lu ba xëy jël alxuraan def ko muy wirdam mhm. rasulullah di wasiilaam mhm. alxuraan di tum bi muy wammat mu xëyal waxal boppam ne awwalu mabtadda bihi alqadim taalluqun bi man lahu taqdim wa azhara al xidmata ama jaysasin waxal boo adbara min asasin munsaliqan fii jaysasin min gayri rabbil wara qadimu usnil xayr léegi li siku na ci lépp lan mooy doon wasilaam rasulullahi lan mooy wirdam alquran saarifan himmati li rabbi taala raajiyan saqiyahu bi maa il mahin maasikan bil kitaabi maska dariri bi yadil qaidil basiril muayini loolu mu mel nag nga xam ne kon teel naa peeg jamono ba xëy sañ te bi muy taxawal yoonu murit nit daana naafila téeméer rakk di gàggantikoo lawxul mahfuus di mbokkam sëñ bi ne ku namm li ma namm ñëwal nu dem yàllaa ma digal ma wax ne man ahmadou bamba amara nii rabbi amara nii rabbi bi an usarriha bi annani maladun wa ximan wa mafzaun fa man araada alxayra fii kiltay daarini fal yalus bi wallaahi yàlla ma wax naa bàyyi denc bi ak nëbb bi te annoncé àdduna na leen muccuwaay baa ngi rawwaay baa ngi nii xettalukaay baa ngi ku bëgg jàmmi àdduna ak alaaxira kaay jox ma sa bopp loolu xanaa boo nee sëñ Tuubaa ko wax demal ci Baye Xaadi ma da ko seede Baye mm. man jan malazan mafaran maw ilan wazara ma walaw inda hululi buusi wal baas la ilaha illallah mm. sëñ Tuubaa du ay caaxaan sëñ Tuubaa du ko ñuy dugal ci groupe ak kapp kappal ak wut looy organisé sëñ Touba ligne bu leer la nekk ku ko xam gëm ko topp ko mm. ku ko xamul ne ci miig te ne ci pat te xam ne ñu la raw a ko seere mm. ñu la gën a ko seere ñu la ko seere mm. loolu mm-hmm. la la ca war kay mooy nga jéem koo gëstu mm-hmm. jéem cee def yitte ngir jéem koo xam looloo waral ba mu melee nii ba ñii ñëpp seereel ko moom xoolal bayit bi bàyyi xaalis bi jaxate wax ci sëñ Touba lu ko gën rëy mm-hmm. te Baye Xaadi ca mag ña la bu rëy ba xam-xam ba sell ga mi nii li Ahmadou Bamba moo moo wax li Seexul Xadim waaw mi nii li Ahmadou Bamba mm-hmm. ak taariki naasi xayral ilaahi mm-hmm. fa am saa sayida naas Baye Xaadi nee na man lii may bind maa ngi ko jëme ci Ahmadou Bamba mi nga xam ne bàyyi na ku yàlla fàtte na ku dul yàlla dem fa boroomam yàlla def ko muy sangu bindeef yi ak taariki naasi xayral ilaahi fa am saa sayidina si moo tax mu mel melokaan woowu wéetal yàlla ci doxinu sell loolu sóob ko ci ber boroomam ragalul buur ragalul baadoo la yàlla képp la wéeru ngi ci tawxiid bi moom rek jox boppam mësta mhm. jàng ci dara mhm. lastu axaaf durra xalqin baadama mhm. fa waltu amriya ila rabbi sama du ma ragal mukk loolu bindeef ginnaaw bu ma nee yàlla yaay buur loolu tax na ba li ngay xamee jëmmi Sëriñ Tuubaa ci boppam tawxiidam da ngay xool téere yi mu ci bind ba noppi doo a xool moom ni ko appliqué. door a xool ni ci yare ana téere bi ñuy wax Mawaahibul Quddus. fii nazmi nasri Cheikhina Sanusi. ana téere bi ñuy tuddee Faydul Ghaniyyil Mughni. alxidmatul mutahara fatul fataam alimul xabir fi basti almi yu addi ila ajrin kabir jaalibatu saada jamhul maqaamaati lati farra ilayha alxawmu fi charri xasiidati laa taqisu sinatu wala nawmuloo faydul alimul xabirul waxid fi ma la yanbixi anhu min atawxid yi jasbatu sixaar an laabi xidmatil maxtaar lu ci nekk sëñ bi taalif ci ay téer tasawuru subaan ila atbaa maliki dayaan wa tasawuru sixaar yeneen taalif yoo xam ne it day jëm ci fiq lu ci nekk mu taalif ci téere yi koy jàngale aljawharu nafis fi di nasri alaxdari yemut ca loola it wet gu nekk mu indi cay melo indi ca ay téere yoo xam ne moo lay won ne kii xam na li muy def mm-hmm. ndax doonul koo xam daa tëb rek na bëgg naa nangam wala def naa nangam te fekk xamul yoon moom cay jaar da def jël jaar yoon woowee jaar ko mm-hmm. loolu moo ko may keroog bañ ko proposé bëgg koo jàngaloo jëm ci wuri àdduna mu wane ci wetal yàlla te booba sëñ Touba ba muy bàyyi ko paatar di ñëw Mbàkke Kajoor day bëgg ñett dërëm di wër Kajoor ak Bawol bindu kaamil di ko jaay te du jar. bind kaamil di ko jaay te du jar. tamit amee borom ñett dërëm ba ko fay. war a joxe borom war a joxe ñett dërëm loo xam da koo gàlloo ci war koo jox ku ne Asan Sérif du bor bu muy leb waaye dafa baaxoo di ko joxi téere mu baaxoo la koy jox. te sëñ bi lu mu dëre dana ko def at mi jot téere yi ne fi te li ko sëñ bi baaxoo woon a jox néew fi. sëñ bi bindal boppam ab kaamil ànd ak maam Thierno ak Cheikh Massamba Diop Sam boo demee ci nub satu taarix yi fekk ko ci di wër Kajoor ak Bawal di wecc ko kaamil bi kenn jëndut mu dem ba ñëw Pataar mu dem ba jógee Pataar ñu Mbàkke Kajoor waaye juróom génn àdduna ñu proposé ko pouvoir bu wéy mel ni toog ba yàgg rek ñu ne la tey yow kat sa way jur moo nekkoon conseil président bi wala moo nekkoon nangamam tey jii jóge na fi kaay ñu jox la posom boo ko defee kat power gi baax sa situation réglée jamono boobu mhm. lan la buur di représenté mu ne qaalu li yarkan li abwaabi salaatil tahuz jawaaiza tuxni kulla maa xiini fa qultu xasbiya rabbi wa ktafaytu bihi walastu raadiya xayran an madin walastu arju wala akhsha siwa maliki li annahu jalla yuxniini wa yunjiini ñu ngi naan ma jàngal jëm ci wuur yi boo ko defee da nga am ay payoor kado yoo xam ne dana baax ci yow ma ne leen yàlla doy na ma te doyloo naa ko fa qultu ma ne leen xasbiya rabbi yàlla sama borom doy na ma waaye doyloo naa ko wala turaabu ya xayral almi wa diin lu dul xam-xam du diine gërëmuma ko du ma ragal baa may yaakaar ku dul yàlla ndax bu ma nekkee ci njàqare yàlla may gindi bu ma nekkee ci tiitaange yàlla may dimbale bu ma amee yitte yàlla ma koy fajal daal dafa kay fa yabaadu nii xobul xutaami ila yi mhm. man duuruhum rawda shayatin bëgg poñaxiit bëggum koom ni mu may yóbbee ma fekk ñoo xam ne seen ëtti ëtti seytaane la ma di ko fréquente in kaana aybi zuhdun fi xutaamihimu fa daaka aybun nafisu laysa yuxsini bu dee nag wan gi ma woon ginnaaw seen pouwaale ak seen daraje mooy sama ayib loolu daal ayib la joo xam ne ju ruis la man woon gi ma woon ginnaaw adduna ñàkk gi ma ko ñàkk du gàcce ci man mu dëgmal yàlla rek dëgmal yàlla boromam subhaanahu wa taala ci yitte ju kawe yitte ju rëy ay guddeem de yàlla ak boromam layaalihi asraaru wa ayaamuhu hudan wa awqaatuhu barrun wa anfaasu sukru wa kasbuhu sarmadan tawxiidu xaaliqihi wa matt muxtaarihi xayril bariyaati fàggu guddeem ak bëccëgam mooy wéetal yàlla ber yàlla saxal na yàlla képp mooy buur waaye amul beneen buur bu dul borom bi subhaanahu wa taala sëñ Tuba am aqida ashariya bu dëgër saxal nu digal ñu ne ci Malik dund tasawuf bu sell daal di leeral boppam moom fan la féete ak nan la mel hada wa inni yowma suur ridaay billahi rabba rabban xuqa bi thanaay kon wax na la fi mu jëm wa bil ulal islaami mhm. diinan wa sabil wa bi muhammadin nabiyina wa rasul wa bi kitaabihi wa baytihi dalil wa xiblatan lastu li gayriha amin wa bi aqaidi sanusi sharif aqaidan fi xaqi rabbina latif yàlla rek laa def borom jubug lislaam gi mooy sama jub diine laay tegtaloo yonente bi alayhi salaam moo may moom mooy sama yonent mhm. alquran mooy sama téere mhm. téegub yàlla ba di baytillahi alxaram mooy sama kaaba fa laay jublu pas-pasub enchar yi bu dëgër bu ma am ci diine pas-pas bu leer ci dogu goo xam ne jëm naa ko ci diggante sama borom nga xam ne tey bu ñu la doon wax kon euh, woowu melokaan mooy la ko euh, ibnu ayna ni shanqiti yi waxoon ba mu koy tagg na ko wa min naxwika al manxu naxwu ibnu maliki wa min aqdika al maxquudi aqd al ashaari bu dee ci naxwu al malik waaye bu dee ci euh, aqida mm-hmm. kon looloo tax yitte jooju mu am ndax gannaaw euh, ay ay partenaires defe naa bu dee ñett la moom mu jël achar yi. Mm-hmm. defe naa euh, dañuy wax ne borom xam-xam yi nee na ñett la nga xam ne ahlu sunna wal jamaa yi loolu lañ tënk. Mm-hmm. mooy ban Ahmad ibn Hanbal moo jiite benn bi. achari mm-hmm. euh, yooyu imaam imaamu Abul Hasan al achari. benn bi mooy imaamu Abu Mansour. nga xam ne ko ñett lañ moom mu jël al achari yi moom sëriñ bi. ci boobu di ko dox. nga xam ne melokaan woowu muy am am na fu sukkandiku teg fa mbiram. ñëwul fent lu bees ñëwul fekk li fi gaa yi bàyyi woon tam nekk jub ak baax mu wonee ginnaaw dafa ñëw la ca mat a dolli mu dolli ko la ca mat a dindi mu dindi ko lañ ca fàtte woon mu delloo si waat ko looloo tax mu ne lam xal bi xayru tawxidil malik wa niyatul xayr wa faaraqtul muluk sama xol bi dara jëmu ci lu may wéetal yàlla borom bi subhanahu wa taala sëñ pap sëñ Tuubaa dane sama lépp yàlla laa ko jox ma lëttu rabbi maliki yi xaaliluhu ka amali wal niyati sama lépp borom bi subhaanahu wa taala moom laa ko jox billaahi amantu wa wacci uslimu mhm. abdan lahu wali nabii axdimu yàlla laa gëm rasulullahi lay liggéeyal shahitu an allah rabbun waaxidu wali janaabi laa yamiilu jaahidu seere naa ne yàlla képp ay benn boobu mhm. shahitu bi an allah rabbul xalq wa ana ahmada rasulul xaq mhm. kon wéetal yàlla googu mu wéetal yàlla ak ber yàlla borom bi subhaanahu wa taala loolu tax mu jàngale melokaan woowu nit ki ni mu koy doxee loolu tax it ci biir ay dox yi na ma ki waxam fekk ci wéetal yàlla ak dogu ak yitte xam fa muy dox ci tànkam mm-hmm. te booba fekkoon na ci réew mi nag ñoo xam ne ñu ñëpp niy mel foo fekk ku jub fekk ku mel neneen ñoo xam dañuy boole xam-xam waaye doxee neneen boole alxuraan ak doxe neneen mën a jàdd sëñ Tuubaa nag wan loolu lépp ginnaaw jublu ci yoonu yàlla borom bi subhanahu wa taala mhm. kon fan la fekkoon yëf yi nee na damaa ñëwoon mel mel ne lu ràpp ma ñëw ngir yeesalaat ko yeesal googu mu doon yeesal it ci pas-pas bu dëgër sëñ Tuubaa ñëwul rek forcé nit ñi dara da nekk dafa fekk nit ñi ñenn ñi ne ci ak ndëngati ñenn ñi ne ci topp seen bakkan ñenn ñi ne ci réer moom mu ñëw def nan mooy woo nit ñi jëme leen ci lan min azulamaat ila nuur min zulamaati alkufri wal fusuq wal asiyaan mhm. ila nuuril imaani wal islaami wal ixsaan wa min zulamaati aljahli wal faqri wal kasal mhm. ila nuuril ilmi wal qanaati wal amal wa min zulamaati alshakli wal baatin wa taraddudi ila nuuril xaq wal yaqiin wal iqdaam allahu akbar lëndëm googu weddi yàlla mu indi ak jub ak gëm yàlla ak tàyyeel ak nuujarlu mu indi sawarte ak jëm ci borom bi subhaanahu wa taala ak ñàkk xam yoonu jub ak yoonu baax mu bijj ni ñëpp ci nuurul imaani wal islaami wal ihsaan mhm. ci lu mel noonu la sëñ Tuubaa di taxawee waxtu wu nekk ba loolu moo ko may sax bi muy jam jàmmaarloog nasaraan bi jëflante ak ñoom mhm. dana yoruma ay jaasi yoo xam ne yooyu sayir la waaye say fii la si ci atlu tulaaman sallasu tawxiiduhu mhm. jaasi ji may doge doq ku ñetteel yàlla mooy wéetal ko mooy sama gànnaay gi xam ne moom laa yor ndax léegi noonu mu doxe ci melokaan woowu mhm. da caa yam déedéet ni mu ko doon waxee noonu la koy jëfe ci digganteem ak boroomam noonu la ci wétali ko ci digganteem ak boroomam loolu tax na ba xoolal sàmm gi ne ci moom ak wéetal yàlla gi nekk ci Serigne Touba ak xam gi xam ne yàlla képp mooy buur yàlla képp moo mat a topp yàlla képp mat a jaamu yàlla képp mat a wóolu mu ne waxtu wu nekk maa ngi jaamu yàlla ba waxtu yu ma fi bàyyi ko du ma ko bokkaale du ma ko booleeg dara ndax yàlla moo ma seetal ci lépp luy bokkaale seetal ma ci lépp loo xam ne ak naafiq la ndax loolu bu ko bindoon rek wax ko te jëfewu ko waaye yan béréb ak yan circonstance moo ko gaar mu mhm. jëfee lu mel noonu mhm. gëm yàlla googu mu gëm yàlla moo tax mhm. kere bi ñu koy teg nattu yi bañ nee ko diis na dana sokkuma ruugi yàllaa ko sàkk waaye jom ji lu ma teg attan kon xam na ne yàlla moo moo moo koy défendre ci lu lu mën a doon a doon keroog bi mu jógee Mbacke Bari jëm Louga ci yoon wi gis nga gendarme boobu nga bi ñuy jub moo daw ba traversé sëñ bi na ko tee loo mën ciy léemaay ak loo xam ci lu baax baye boo nga wax ko ndax ñii nga jëm seen yéene ci yow dara rëfit dara jëkkul mhm. sëñ Tuubaa na ko fu yàlla nekkul daal lu ñu fa baax fu yàlla nekkul lu fa def baax allahu akbar waaye yàllaa nga fa rek lu am rek borom bi subhaanahu wa taala loola moom la soob moom la neex mhm. wéetal yàlla googoo taxit mu waxal boppam ne xadamtu bil ilahi bunyatal fira wala ulaaxi abadan man kafara màbb naa lépp loo xam ne ay sos la te nekkul dëgg ci baatub saxal yàlla ak dëggal yàlla nga xam ne melokaan wooyu da koy da koy doxee ci waxtu wu nekk ci wéetal yàlla googu ak doylu ci digganteem ak boromam ak sàmm loola tax na ba Cheikh Amadou Bachir nee na bu daan jàpp am na bis loxo bi ab neewoo da cee nekk ak taab waaye buy jàpp loxo bi dara nekkul ni mu koy bombe ni lay bombe bi am taab gi naan ko yow loxo bi benn nga dagg baa nga wér waaye man jaamu yàlla la te lu ma sant danaa ko def nga xam ne bu jàppee ba noppi dangay gis fi toq-toqi dëtt yi di nekk ak ak deret ji waaye nee na li ko boromam digal du du ko wutal sax ak jàppandal wala yombal lépp loo xam ne ab ruxsala ci moom du ko nangoo jëfandikoo ngir gàll boppam mbir yi gën a tarte gën a diis wéetal yàlla googu tax yàlla di buur moo tax góor gouverneur général taxaw ci kanamam na ko may yàlla xoola boobu baat ni mu réyee anaa mu dabbirul umur la jëfandikoo may yàlla ndax suñ tubaa daane fee di xunutu naan ko doo yàlla dana ñokket na ñaadam ñaadam tànk yu dëgër ba fekk ko fi mu nekk jël loxo bi teg ko ci casquette bi di gësam bopp na ko kadabta mu dabbirul umur xayyun laa yemu wa sa tamutu insha allah fa xum la ko xëri loolu mooy lan nga kàcc nga doo yàlla mhm. yàlla mooy ki fi sax lu fi jóg mukk yow nag sax dund sax la ci islam la ilaha illallah mhm. kon loolu mooy wane fi mu teg boromam ba bu bu nit waxee baatu nangam moo tax bu nit masaa wane ko bu yàlla wéyee bi wéy mu ne ko ahmadu wéy mhm. bu yàlla wéyee yonent bi wéy mu ne ko ahmadu wéy wéetal googu mu wéetal boromam ci lépp lu mën a doon ak ber gi mu ko ber kas bi tawxiidun wa matxun li nabi la wax sama fàggutéef gépp man Ahmadou Bamba mooy wéetal yàlla di ko ber lu ma ca yem ci di ko ber waaye yàlla borom bi ci boppam dama caa boole liggéey rasulaay xanaa ki bind lahul wujudul ladi xad kooku kon wóotewul ne man ak yàlla déedéet huwa lam ara xayrahu wala arahu fi cheyin hada wana wala lépp lu mën a doon gisuma ca xooluma ca ku dul yàlla borom bi subhanahu wa taala loolu la def ci guddeem ak bëccëgam yépp nga xam ne salim min al afati jumlatiha wa ma nifaqan bi ma imadi masaja mhm. gëm gi mu am dara kooju ko ci wéetal yàlla <clears throat> ak ak ak bëgg yàlla mhm. te mësta am melokaan wu tax wu ko gaar ba tax mu dellu ci ne kenn am na ku dul borom bi boo xoolee xasaayid sëñ Tuubaa yi lu mel ni laysal bir wala yu mel ni yenn xasida yi mhm. xoolal li muy dal ci kaw yéefar yi te ma nga ci seen biir booba waaye teew da leen di joxal ragal ngeen nangam ngeen di leen doye dal di leen weddiloo lañ gëm te gënut ba egg ci ne woo naa leen sax juróomi at ca gamu waaye ñun wu jorul rek nga xam ne yëmut ci jëfe tawhid ji waaye fu dem day saxal ne yàlla rek mooy benn buur yàlla rek moom la a topp mhm. loolu feeñ na ci biir jëfi xoolal tey loo daan fekk ci dëkk yu jëkk yi ni sëñ Tuubaa delloo lépp yàlla dëkk bi mu njëkk am sanc ko nu mu tudd Daaru Salaam commencé ab dëkk foo koy féetale ñaata dëkk nga daan dégg dëkk nangam dëkk nangam dëkk nangam kër bàyyi nangam kër lu ne fi daan am mu ñëw wax Daaru Salaam allahu akbar ñu wax Touba daarul minan daarul xuduus daarul rahman daarul wahab lu mën a ñëw rek mu delloo ci bu dee ci biir Touba lu mën a ñëw mu delloo ci bu dee ci biir njaboot tamit abdou salaam abdul muayminu abdou nangam abdou nangam lu ci nekk abdul ahad abdou samad abdul xaadiri nga xam ne sëñ bi dafa pratiquer jëfee wéetal yàlla ba ciy dëkkam ba ciy jëfam ba ciy mbindam ba ciy melokaanam ajjana la toxal rek te demaguñu fa. waaw ah. ajjana la toxal andil ñu. te ajjana la toxal andil ñu. kon lépp da koo teg ci yoon woo xam ne. yoonu yoonu yoonu yoonu ber borom bi la. Mhm. subhaanahu wa taala ci mhm. melokaanu biiram. Mhm. ak euh, melokaanu bitam. loolu it ni muy feeñee ci biir doxinu sëñ Touba nga xam ne. yi mu fi changé dindi ko ci. nga xam ne bañ na ko bi muy sañ tuubaa Touba dañu. sëñcu ko ngir cosaan yu jëkk yi subaa ak Darou Salaam sëñcu ko ngir sàmm sëñu ma ko ngir commerce li tax ma sañc ko jaamu yàlla borom bi subhaanahu wa taala képp ba ci julli géej gii bi mu sànnee del bi julli ba noppi bi ko mag ñi laajee ne ko loo ci jublu woon dana defuma ko ngir xar baax jaamu yàlla képp laay ci jublu woon lépp lu mas a ñëw ci Serigne Touba ci yàlla la koy delloo te kon bari na koo xam ne mi ngi naan yàlla yàlla te bu bu taree baa mu metti baa mu dëgër mu dellu ginnaaw waaye Serigne Touba dane waxtu wu ne may seere ne yow rek yaay buur yow képp laay jaamu du jaamu keneen ku dul yow te bu ma lay jaamu nii laa lay jaamu a'budu rabbi bi xayri sunnani ba'dal faraa'idi wa yu'li minani loolay war bu ko quartier yi wëree ñuy taxaw yor seen fetale bu nodd jotee mu taxaw ca kaw ne allahu akbar noddal boppam ne ci seen biir kon Serigne Touba te noonu mu meloon loolu la yare woon mboolem ku ma sa ne ci moom loolu la tàggatoon mboolem ku ma sa ñëw ci moom loolu la joxoon képp ku ma sa ñëw ci moom moom wan la yàlla ju leer joo xam ne mhm. lépp yàlla yi kese la mhm. moo tax Serigne Touba léppam borom bi la subhanahu wa taala moo tax Cheikh Ibrahima ju almachari ci bi mu koy misaal dana ko gaa yu baax nañ ñëpp am daraja mhm. ñëpp am maqaama mhm. kenn tuutul mhm. waaye nag yaa leen ëppi may sa daraja lu mag te yàlla yow Sëriñ Tuubaa dana ko fa jaawuka inda allaahi jaahun muazzamu fa man naa la yasfar bi aswa wasilati li annaka shamsul wa xutbuhum wa hum minka amsaalu nujuumi daila allahu akbar fa lil kulli minhum rutbatun wa makaana taalat walakin fuxtahum bi masiya li annaka asfaahum wa aksarhum toqaa wa axfaahum turran bi masabi sunnati wa akdarum ilman wa xilman wa xikma wa ajruhum xaqan bi kulli fadila wa atwaluhum baaxan wa ajsaluhum nada wa ahruhum billahi min duni miriya li nga jiitoo mooy point yii yaa ci gën a sell juróom-ñaar fukki at la dund ak juróom mës ta tiim mës ta faat waxtu du wokkutu du tàqamtiku du gestu du wicci loxoom amul lal bu muy tëdd du yor poos du fob doomam mhm. du bànneexu lu ko lew la nekk dagan ko mu ko ginnaaw wéetal yàllaa tax sëñ Tuubaa dawul boole suukar ak soow du boole cere ak soow sëñ Tuubaa menn ñam wu mës a tiim lay jëfandikoo bu dee soowa suukar du ca dem bu dee ceree suukar du ca dem benn yoon la jëfandikoo ci gabon muuraaki keroog bi mu ko musee boo demee ci maj wax maam Serigne si la danga ko ci fekk keroog bi bi mu rakkee mi taqee ci déngalañ ji suñu borom dafa yónne ci saase na ko bu bàyyiwut mos lu mel nii duutu gis rasulullah ne fa xasimtu fil xiin ma doo ko ca saase boole ci jaay loolu xam ne du wokkutu ndax nee na ku wokkutu yëg baa nee xob xesen te ahmadu du yëg lu may boromam loo ko masasam danaan sëmm ndib jànj du dàq du faxas te du teqali ma ngi kiij kiij allahu akbar bu guddee ba nit ñi lelaw mu ne di wër di jàng alquran amul lal bu muy dalloo fa kam min layaalin baataxal xaw su taaliya ala suwari taltili wal kawnu naaimu kadaka ayaamu shaqana saatisa wa yut'imuhu multasihu wa saaimu loolu la Serigne Mbacke bu so wax guddi gi adduna bi la teg ñëpp di yandoor mm. muy kër kër yi ci alquran di dënn ba di réer bu bëccëgee mu tàng ba picc di daanu ndox mi tàng mu tàng jër mu jël ndox mu neex di jox nit ñi ñu naan moom ci boppam muy woor wéet googu muy am ci melokaanu wéetal yàlla nga xam ne yi ko lew yépp dagan ci moom du ko jëfandikoo. xaadimu rasul nga xam ne li nit sañ ko boppam. Serigne du jëfandikoo melokaan yooyu. nga xam ne lu mbir rëy rëy lu mbir diis diis lu mbir tege ci kawam benn avertissement la yeb rasulullah dana ko suba nangay xew may xew mu jël loola yàlla. loolu kon wane na Serigne Touba léppam boromam subhanahu wa taala moo tax mu ne ko yaa leen gën a seet leen ak asfaahum wa aksarum tuqaa yaa leen gën a ragal yàlla mës ta tooñ te ko tooñ mu jéggal sëñ Tuubaa dana tareet juróom benn rëdd na ñett yii la séq yàlla sama borom mhm. lu mu digle def naa mosuma def lu muy tere lu mu dogal neex na ma mhm. ñett yii la séq jaam ñi mosuma cee tooñ kenn ku ma tooñ baal naa lu ma bokk nañ xanaa xamoo sëñ Pape sëñ Tuubaa daa yegg ci baale ba wax ne kayit yu mu bind ne baale naa ku ko gis ci lu dul photocopie waralu naa la la allahu akbar waxuma jëmi baale gi rek waxuma baale gi de gërëm waaye dane ku gis kayit bi yu ma bind ne baale naa ci lu dul ma nga ca muqaddimaat waaye dafa wax ne li yaalam kullu hadi ruub afa an kullu man zalam afa an lu ma fayonte kenn ndax ca mu ne déedéet mu ne li may yéene ki aju ci man da ma ñaan yàlla ku ma tooñ daal li ma yéene ki aju ci man di murit laa yéene ki ajuwul ci man ba noppi di jullit. bark la si gànna xam naa dañuy dellusiwaat ndax point yi dafa bari. am na fi yeneen ak feneen yu ñu bëgg a ñëw.